Thank you. Allez Là, il pique, ouais Là, va ce Allez, push لا اله الا Düş. Mannan ko la ngay daan. waa papa. bon. papa da ngaa jënd xaar. maa jënd xaar bii de. allo baax na mais xanaa dañu koy réeré tey. kii. gis ngeen li muy rëy rëy rëy rëy. fukki junne laa ko jënd. Hmm. boo taxee papa yaa ngi dox ba sa tànk yi. kii. xaru bojo bojo. waa xar mi sax foo ko jëndee yow yaa ngi ni dox nga ba fën karbala karbala karbala nii wala xam ni ñuy def hmm. xar mu ñëw jàppale la nga tax ko après ñu jox ko mu lekk bul yeggale bul yeggale may loo ma la ndox may loo ma la lekk kii mooy man ah. ni ngeen ma ko seetaanee nii seetaan leen mag moom bu kenn jox kenn lekk yow man ak sama yaay ni nga def bu ñu na waaw kañ de boo leen ko nii bàyyi leen mi nii bu kenn yeew ba leen ko ci liberté doxal fu la bu ko kenn lijjanti waaw kay yow man xamaluma ma soob yow heure bii gone yu jigéen daan nañ indi seen far ci kër gi ñuy def effet tuuti yow ku lay doxaan ku wutil far la moom moom mu jox ma dara di ko soble génn ba pombi teer wala déggoo ma la woon bul farantu ba tey déggoo ma woon man la bul farantu indil far wi ku am nag bu indi ku ñàkk ndax ñu mënuñoo ñàkk ku doxaan ku ñàkk di la doxaan loolu mënut a nekk invisible. papa daal boo bëggee far daal naa la ko waaye bu ma laaj man far daal. bu ñàkkee nga am problème jàllal man cey la nga ruus barki rasulaay daal jay hmm? kontaanati waa la ko wax kon lii man benn baat booy faral di ma ko wax te naan ma ëpp naa laay lee kon nag ëpp ëpp ci cam da ngaa dégg la mais gis nga kan gi tu bi changé wu jooy romb na fii te gisoo kuy bi mbote de duggoon na fi sànq ma daal mbote fa ab mbote bu ndaw sax dugg na fi sànq ma daal ko loolu daal xarale woon fi doon màkk fleur yi ma daal ko mu jël ay waay kii dàq na sama dina kaa alaaxira di waa mi jaay foo jóg ku yàlla mayoon na mbote ñu ko سمعي مالك لا جنب الحمد لله خر lu fi xar xar xar mu jigéen aywa sama xarum tabaski la xar mu góor la xam nga ni fer xar mu am ay béjjën waaw am fii lu ñuul ay waay gis na ko nu xar mu weex la nii am génn gu gudd nii. cam yaa xam sama xar. waaw xoolal xam nga nooy def. ay waay doom nii. nga jàdd à gauche. gauche bul jàdd de. bul jàdd de. gauche am na booy toog foofu. cey sama xar ma feeñ nga laaj ko booy. kon yow yaa sa tegtal bi yëpp xamoo fi xar ne. war na mën ci sàcc bi kii gées maa ni njëkk ñëw kii ci ñu daan gées gées yu njëkk Ну да.